jiitu ci yitte yi nag mooy yitte ndox yitte ndox ndax ndox mooy li nga xam ne doomu aadama mënu ko ñàkk te daaw màggal bi jafe-jafe yi bari woon na ci ndox ndax xëy na yokkuñu woon forage yi kon buñ ko yokkatu màggal gi nit ñi gën a bariwaat kon fu mu yemoon ci manqué dana yokkuwaat noonu lu ma ko sëriñ bi waxee ba ma ko waxee fa moom itam mu jox ndigal ministère bu ko yor sant ko ci ay ndigal ba nga leeral fi mu toll tey mu toll ci ñeenti forage yoo xam ne gas nañ ko ci dëkk bi yoo xam ne état senegal moo ko def ba yaakaar nañ ne lépp daanaka mën naa am balaa weesu fukk fan ak juróom dana jeex loolu la kon dana dolli ko ci li nga xam ne nekkoon na fi mën naa soppi indi ak soppite ci wàllu ndox mi ba ca dolli ko waat tam mooy ñi ko seq mooy maa ur rahmati bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk ndox mi te sëriñ Moustapha Dieng nekk ca bopp ba ak ñi ko sëriñ bi boole ñu du ko jàppale muy sëriñ Abdou Khadre ak sëriñ Moustapha Moussa ba ca dolli ko waat ñoom itam ñu xam ne état bi ndegam mi ngi góor ba def na fi ñeenti forage sa loolu jéegaloo boo xam ne géej naa fukki at yëpp amu ci fukki at yi may organiser màggal bi moom xam naa loolu amu ci kon loolu jéego bu rëy la ci àdduna ñoom comme xam nañ ne sëñ bi ma ci taalibe yi koo xam ne joxoon na Serigne Cheikh forage ba boo gas nañ ba sori na am na beneen taalibe boo xam ne tam joxe na beneen forage ragaluma nag man fee àgg fee màgg ak na xat na ci biir loolu itam commune bu Touba. ñoom itam la leen ca waroon muy engagement yoo xam ne jëloon nañ ko ñoom itam def nañ ko la ci mujjoon mooy lii ma yor ci sama loxo mooy li jëm ci gasoil nguur gi ngir jàppale ko nguur gi jàppale ko waa Maa-u Rahmati ba nga xam ne jafe-jafe courant bu amee itam ndox mi bañ a taxaw ndax loolu tam bokk na ci li indi jafe-jafe bi léeg-léeg boole ci ndox mi nga xam dolli nañ ko état bi itam lu ma ñaar ci ñaar ci kilomètre loole nañ ko ci ndox mi ci wàllu réseau bu bees loole itam li ëpp solo ci niñ ko liggéeyee mooy ci quartier yu sol yi ndax gis na ne ñoo gën a gi ci ndox ndax biir dëkk yi metti na ndax nit ñee fi daje waaye bu màggal gi agsiwut ndox mi du ñàkkee ndox waaye fi ne ci biti dëkk bi nag ndox mi dafa agsiwut ci ñoom kon loolu itam ab jéego la boo xam ne ko waaye am na beneen kilifa bu mag di sëriñ Ibra Xujja nga xam ne mooy xalifa sëñ Manoumbe moom itam ci pëstéefam trent kilomètres ndox damaa damaa juumoon démb ba ma koy wax waaye trent kilomètres tiwo jox na ko sëñ bi addiyee démb sëriñ bi tegaat na ko sama loxo ngir ñu tasaare ko ci dëkk bi loolu itam bu doole ko ci kilomètres yi nga xam ne état bi def na ko ak li nga xam ne waa ma waa commune def nañ ko loolu dana soppi ko waat loolu ci ñàkk ndox ji woon ci dëkk bi loola itam woo ma rahmati ak commune bi ñu seet ci bar bi ñi ko gën a soxla nga xam ndox mi àggu fa ñu xool nu ñu fexee ba lépp tegu ci ba lépp àgg ci nit ñi loolu lépp itam ay jégalu yoo xam ne ñu ngi yaa ñaan ci yàlla ci barke Sëriñ Tuubaa suñu borom li nga xam ne mooy sotti ni ñu ko tàmbalee am ci yaakaar yàlla na yàlla mot li yéene ji ak jëf ji liggéey bi ni ñu ko somb te yaakaari ko noonu te lépp rafet ko ba agsi suñu borom dimbali ñu ci barke Sëriñ Tuubaa lépp àgg ci jàmm ba màggal bi doon màggat boo xam ne day doon màggal boo xam ne du ñàkk ndox ngi sant ñëpp di gërëm di santaat seeni ci taxawaayam ndax gis nañ yitte jim ci am ndax màggal bi dafa jàll mu tàmbalee waajal màggal bi buñ ko fi indi boo yàggu ko waaye boobu ba léegi ñu ngi ci def yitte ji def ko seen di ko sant di ko yóbbante sant ci ay kilifaam tàmbalee ko ci soo Faye mi nga xam ne moom tam ñu ngi ko koy seere laat ndax nit moom la nga xam ci moom rek nga mën a seere te xam naa ak yëg ci ak yitte ci dëkk bi ndax ñoo ko fi jëkkoon sax mooy jën fay mu yoroo ministère bi ñëw na ko sama kër di ab bi ne ma da ko sant fu ngeen ko njëkkee gis ndax lépp luñ ko wax lu jëm Tuubaa da ko yokk loolu da ko yitte kon ñu ngi ko sant di sant président bi nga xam ne ci ndigalam lañ ko defee di ko ñaan suñu borom dimbali ko suñ tubaab fay ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala